ci li nga xam ne mooy atum 2024 bile li nga xam ne nag moo ngi xëccoo ba moom gis nañu ne li nga xam ne mooy finaliste yi doxoon na digganteem ak ki nga xam ne mooy Vinicius Junior voilà Bellingham ak kii di Carvajal mooy ñeent ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci li nga xam ne mooy bopp classement bi ci vote yi nga xam ne xëy na amal nañu ko voilà waaye liste ba guddoon na lool ndax demoon na ba ci fanweer ci ay joueurs waaye ñeent ñi ñoo mujjee ca kaw Rodri Hernandez moom mi nga xam ne moo gagné Ballon d'Or bi Vinicius ci ñaareelu place bi Jude Bellingham ci ñetteelu place bi waaye ki nga xam ne mooy Dani Carvajal ci ñeenteeli place bi kon gannaaw Rodri ñetti joueur Real Madrid ñoo ko dal di topp ci li nga xam ne mooy classement boobule voilà moom Rodri nag bu ñu xoolee joueur la boo xam ne day ku ñu ràññe la ni daaw ñu bëri jàppoon nañu ne sax mérité woon na gagné li nga xam ne mooy ballon d'or bi xëy na li nga xamante mooy France football dañuy rectifier la ñu defoon daaw waaye nag mujjuloon gagné a nga xam ne mooy ballon d'or boobu ren ji nag ñu bëri jàpp nañu ne day donte ne gagné li nga xam ne mooy ay trophée waaye saison bi mu defoon daaw ñu bëri jàppoon nañu ne ci la gënoon mérité li nga xam ne mooy ballon d'or bi bu ñu xoolee nag foofu la ci Europe journaliste yi voilà ak ñenn ci fans yi nga xamante ne xaw nañu jàppal tànk ki nga xam ne mooy Vinicius Junior wala ci équipe boobu de Real Madrid ba ca Brésil voilà ñoom ñu bëri dañoo jàpp ne daal scandale bu rëy la gis ci li nga xam ne jot na xew waaye loo ci mën a dégg ki waaye daal di def li nga xam ne mooy 14 passes décisives voilà li nga xam ne nag moom la jot a gagné mooy English Premier League ak Manchester City gagné na lii di Euro muy Coupe d'Europe ak Espagne gagné na li nga xam ne mooy Coupe du monde des clubs ak Manchester City waaye gagné li nga xam ne mooy Super Coupe d'Europe ak équipe boobu di Manchester City nekk na tam li nga xamante ne voilà mooy play of the tournament maanaam ci li nga xam ne mooy euro bi le moom la ñu tànnoon moo nekkoon meilleur joueur ci tournoi boobu di coupe d'Europe bi waaye itam nekk li nga xamante ni voilà mooy meilleur joueur ci li nga xam ne mooy coupe du monde des clubs bi nga xam ne gagné na ko ak ñi di waa Manchester City kon amul sikk sàkk ci ne Man City moom moo nekkoon joueur ba ca gën a ràññeeku ci saison bi nga xam ne weesu nañu ko kon loolu moo ko may kon mu daal nekk li nga xam ne mooy ballon d'or moom kooku di Rodri Hernandez ci kaw loolu nag ñu gis ne voilà comme ni ma ndax ñu bari dañoo jàpp ne kat ki nga xamante ne mooy Vinicius Junior moom la ñu gënoon yaakaar ne xëy na mooy gagné li nga xam ne mooy Ballon bi am na ci ñoo xam ne jot nañu wane li nga xam ne mooy seen naqar ci li nga xam ne mooy réseaux sociaux yi bokk na ci ki nga xam ne voilà moom la ñu wax Richarlison bi nga xamante ne international brésilien la nekk foofu la ca Tottenham Hotspur moom wane li nga xam ne mooy naqar bi mu am ndax mënul nangu mukk voilà li nga xam ne mooy Ballon d'Or moom koo xamante ni ab milieu de terrain la foofu la mooy amul sikk sàkk ci ne na war xam ne mooy Rodri Hernandez nga xamante ne mooy meilleur joueur moom ci àdduna wërngal képp jamono bi mu ne amul sikk sàkk ne ki nga xam ne mooy dégg nga maam Vinicius Junior la loolu mooy xalaatu kooku nga xam ne moom la ñuy wax Mario Lemina bu dee ki nga xam ne nag moom la ñuy wax Clarence Seedorf voilà Seedorf bi nga xam ne ancien joueur AC Milan la moom teewoon na ci cérémonie boobule li mu jàpp mooy Vinicius Junior mooy ki nga xam ne mooy mérité woon gagné li nga xam ne mooy Ballon d'Or bi waaye nag dafa jàpp ne ñi nga xamante ñu di UEFA dañoo dugal seen loxo ci mbir yi te bu fekkente rek xeex bi nga xam ne moo dox seen diggante ak Real Madrid dañ cee bëgg a dugal li nga xamante ne mooy yenn événement yi mooy loolu su boobaa gàcc ci li nga xam ne mooy mbirum ballon d'or bi voilà moom kooku de Clarence Seedorf moo daal di gisee nu mel ki nga xam ne nag mooy tàggat équipe nationale bu Espagne mooy Luis de la Fuente moom nag li nga xam ne mooy jàngat bi mu daal di am voilà mooy daal événement yu ni mel daal maanaam ñu koy amal ci wàllum football te équipe bu mel Real Madrid teewul ci moom dafa jàpp ne maanaam loolu nekkul image bu rafet ci football xëy na moom jàpp ne li ñu di waa Real Madrid waroon nañu teew ndax ñu jox leen foofu xibaar Real Madrid teewuñu ci li nga xam ne mooy Mbaye voilà kii di Vinicius Junior gañewul li nga xam ne mooy Ballon bi ñoom ñëpp dañoo mujj fomm li nga xam ne mooy seen tri boobu ñu waroon amal kon foofu la ca Paris teewuñu ci li nga xam ne mooy Ballon boobu du kenn ci ñoom loolu waral na ba ki nga xam ne mooy Luis de la Fuente jàpp na daal lii du image bu rafet ci football ñuy amal événement yu ni mel voilà événement bu toll nii la te Real Madrid teewul ca voilà loolu nekk loo xamante ne Real Madrid nag da teew ci li nga xamante mooy mbirum cérémonie boobule jëlee nañ ci taskati xibaar ne du lenn dul ki nga xam mooy Vinicius Junior bi nga xam ne mooy Dani Carvajal mérité woon na ko ndax bu fekkee ci ay trophée rek la ñuy moom daaw lépp la gañe gañe na Ligue des champions ak Real Madrid gañe na li nga xamante mooy super ak ñi waa Real Madrid muy super coupe d'Espagne gañe na championnat muy La Liga naka noonu it gañe li nga xam ne mooy coupe d'Europe ak équipe motax ñu gëm mukk li nga xamne moy ballon d'or bobu dal di leen recc donte na ñom am nañu sax li nga xamanteni gagné nañ ko ñom wa Real Madrid ndax ki nga xamanteni moy Carlo Ancelotti mom lañu tan mo nek euh, coach bi gëna xarañ ci at mi voilà meilleur entraîneur Carlo Ancelotti lañ ko dal di jox mom mi nga xamne niki daw comme ni ma leen ko waxé trophée yoyep dal do koy gagné waye yemu ci ñaari défaite képp la def la am ci li nga xamne moy saison bobu ak équipe bobu la di Real Madrid mom lañu tan mo nek li nga xamne moy meilleur entraîneur ci mbir mom waye teewul ci liko waral do dara lurul war a di solidarité ak ki nga xam ne mooy Vini Junior bi nga xam ne xëy na moom jàpp na ne ko sàcc ci li nga xamante ne mooy mbir moom la leneen loo xamante ni ñoom waa Real Madrid am nañu ko ba tey mooy ñoom la tànn mooy équipe bi nga xam mooy góor ñi ci at mi équipe boobu di Real Madrid la tànn xam nga loolu it waroon nañ ko mën a jot waaye nag amul ci kenn koo xam ne sax trophée yooyu dégg dal di nga koy jël si ndax kenn ci ñoom teewul ci li nga xam ne mooy mbir moomu li nga xam ne mooy trophée bi ñu waroon jox kooku di Carlo Ancelotti voilà amul amul kenn ku mooy mbir moomu le foofu la ca Brésil nag ñoom dañoo jàpp ne maanaam li nga xamante ni daal moo xew tey jile maanaam ak càcc la goo xamante ne gu ñu fàttaliku la ndax mënuñu nangu mukk ki nga xam ne mooy ne mooy Ballon d'Or bi moo tax ne nañu daal foofu jàpp mooy kii di Vinicius Junior li tax ñu xeñ ko Ballon d'Or mooy ñoom nit ku ñuul la ñu gis voilà nañu ne daal kii di Vinicius Junior wala bokk ab nit ku ñuul pour nga gañe Ballon d'Or fokk nga def li nga xamante ni mooy ñaari yoon li nga xam ne xëy nit ñu weex ñi ñu koy def xëy na ñoom loolu la ñu gisee voilà ñoom waa Brésil moo tax ñoom nanguñu mukk li nga xamante mooy ballon boobu daal rëcc ki nga xamante ne mooy Vinicius Junior coow li daal gars yi bëri na trop ci li nga xam ne mooy réseaux sociaux yi waaye Toni Kroos moom boolewul ci wax ji bëri bi ñu ko laajee li nga xam ne mooy jëm ci mbirum ballon d'or bi nga xam ne Vinicius rek li nga xam ne mooy trophée individuel yi amee sens ci jamono bile loolu mooy xalaatu ki nga xam ne mooy Tony Cruz waaye loolu yëpp fi ne nii amatul sens ndax ki nga xam ne mooy Rodri Hernandez moom la ñu ko dal di jox gannaaw li nga xam ne mooy saison bu rëy bi nga xam ne moom itam dal ko nekk dama la ciy bàyyi ak sa gis-gis bu moo ko dal di moom mi nga xam ne joueur FC Barcelone la voilà moom jigéen bi dàq football daaw moo gañoon ballon d'or bi ren ko dal di gañuwaat kon moom daf ko tegle ci ñaari at lu ni mel la ki nga xamante ni mooy gardien Argentine bi nga xam ne voilà moom la ñu wax Emiliano Martinez dal di amal moom moo gañoon lii ñuy tuddee trophée Yacine maanaam gardien bi gën a xarañ ci saison bi waaye ren ji it moo ko daal di gañuwaat kon daaw moom la woon ren moom la waat muy kooku di Emiliano Martinez voilà moo nekk meilleur gardien muy loolu muy trophée Yacine bu xoolee nag ci li nga xam ne mooy classement boobule bu ñu xoolee juróomi gardien yi nga xam ne ñoom la France football jàpp dañoo gën xarañ jamono bi ci àdduna bi mooy Emiliano Martinez mooy jël premier place bi ndax moo gañu yëf yi ka ca topp mooy ki nga xam ne moom la wax Unai Simon voilà moom mi nga xam ne mooy gardien bu Espagne bi nekk ci Athletic Bilbao ñetteelu place bi André Lonin bu Real Madrid la ñeenteelu place bi nak gua gone gi nga xamné mo gëna ragnéku wala ki dàqa football ci xalé moy ki nga xamné mom lañ wax Lamine Yamal lool mom ñu bari amuñ ci sik sak ndax njort woon nañu né day Lamine Yamal li nga xamné mu ngi koy def ci jamono bile mérité na nek li nga xamné moy meilleur jeune té lool nak déng mam tey ji France Football daal dinañu ko koy jox loolu moom jàpp mën a coow bari na ca voilà waaye bu ñu xoolee li nga xamante ne moo ay ci mbir moom itam am na ay gone yu xarañ yu ma ko seqaloon bokk na ci kii di Arda Güler Kobbie Mainoo ba ci ki nga xam ne mooy Savinho bu Manchester City moom sax teewoon na ci cérémonie itam ab gone la nekk ca Barcelone waaye Lamine Yamal moo ko gagné moo tax moom la teg ci première place bi kañ ca toftal mooy Arda Güler moo nekk ci ñaareeli place bi Kobbie Mainoo ñetteelu selon Franc Football ñoom a xarañ bi ci àdduna wërngal képp bu ñu xoolee nag trophée bi nga xam ne moom la ñuy tuddee Gerd Müller voilà nga xam ne mooy dugalkat bi gën a xarañ maanaam ki dàq dugal boobu nag mu ngi dox ci diggante Harry Kane ak Kylian Mbappé ñoom ñaar mooy ñoom ñaar ñoo tolloo ay bit Harry Kane 52 bit la dugal ci li nga xam ne mooy saison bi moom itam 52 bit la dal di dugal ci saison bi waaye ki nga xamante mooy Harry Kane moom kenn moo ca teewal moo tax moom jël la bosam waaye ki nga xam mooy Kylian Mbappé moom ñëwul woon kon Real Madrid lépp loo xam ne dégg nga maam seeni joueur wala boog képp ku jógee ci ñoom gàññ na ko voilà teewul ca amul ci kenn koo xam ne teew na fa ngir jël ko bokk na ci Kylian Mbappé comme ni ma leen ko waxee Carlo Ancelotti ak li nga xamante ni mooy seen ab boobu ñu tànn comme ni leen ko waxee di équipe bi gën xarañ ci at mi amul ci kenn koo xam ne jël na fa ab trophée pour équipe boobale di Real Madrid leneen luñ ci mën a ci mbirum Ballon ne mooy Rodri Hernandez bi nga xam ne gàññ na ko tey Ronaldo dégg maam nekk foofu la ci Manchester United mooy ki nga xam ne moom mujjoon gagné ab ballon d'or voilà te jógee ci English Premier League boobu ci la des ndax tey ji yëg ngeen ne dàq nañu ki nga xam ne voilà mooy Erik ten bi nga xam ne moom temps yëpp moom voilà mbir mi demul woon dikkul woon équipe boobu di Manchester United temps yi seen dara doxul waaye Erik moom lañ fa bàyyi woon rek dégg nga maam muy jóg ak daanu di dal ci ay match nii la ki defet tey ji mel na ni coow li jeex na ndax moom mujjee nañ koo dàq sax te nag li nga xam ne mooy ci métti mooy dafa prolongé contrat bu yàggul bi ñuy door saison bi bu leen fàtte ci ñu yokk contrat kooku nga xam ne moom la ñu wax Erik ten Hag bu ñu xoolee contrat bañ ko yokki ak léegi ci 116 jours képp la maanaam téeméeri fan fukk ak juróom-benn képp la dawal ci contrat bu bi loolu li muy wane mooy Erik ten Hag dëgg-dëgg contrat voilà léegi nag ñu gis ne loolu la mu leen yóbbee mooy koppar yu takkoo takk fi ne nii man sa sax war nañ ko verser ki nga xam ne mooy Eric Ten Hag bi nga xam ne dàq nañu ko ndax contrat ba ne moom la ñu ko yoral te xaalis bu takk fi ne nii voilà moom la ñu a jox moom kooku di Eric Ten Hag ka koy wuutu nag mooy Ruud van Nistelrooy bi nga xam ne voilà moom la ñu foofu la ci Hollande daal di koy toxtal ci ci wetam bi ñuy door saison bi la jaakaar ne yëfi dina dox waaye ba tey ji amul dara lu sotti ci mbir moomu Ruud van Nistelrooy boobu nga xam ne ancien joueur Manchester United la mooy jiite li nga xam ne mooy nekk lii interim coach bi mooy nekk coach intérimaire pour équipe boobu de Manchester United fii ñuy am keneen koo xam ne kon dina nekk lii ñuy tuddee voilà permanent coach loolu nag jamono bi nee United mu ngi ciy dox am na ñu ñuy tudd jamono kale dafa nah, jot ci mom wala comme mom nak dafa nek ci contrat ak équipe bobu li nga xamne moy sporting tax nañu wa united ñu yex di nga mam gëstu ak di laaj di nga mam ñir wa sporting nan lañuy def ba dal di jot ci kok nga xamne mom lañuy wax robin amorim wala manam ñaata ci ay copar xañ na lañ ko wara mëna jilé fofu jëlee ngir mu di jité seen équipe lool nek na mbir mo xamne jamono bi kayiti xibaar ñew nañ ci wala kon amorim bobu amana bu fekkante ne ñir wa united amna ñu ñu bëgg wala bu dé dégo amna moy dal di ñewutu wuutu di irten Hag ci boobu di Manchester United coach FC Barcelone bi nga xamanteni mom moom wax Hansi Flick mom lañu tan mo nek coach of the month wala bi nak duñ jël ben bi yon wala mom bi ñu tàmbali saison bi ak téggul tank ben yon wala mom da fay do rek rawatini équipe yu magi mom da ci ay lool jamono bi mom lañu tan dal di koy def li nga xamanteni moy coach of the month ci li nga xam moy mooy octobre bile ci li nga xam wala moy ndorté li saison bi kon bi duñ jël ben bi yon mom koku di Hansi Flick dal di koy do rawatini weer bi nga xam ci ben semaine rek def na fi jëlor yu ama am solo dor fi FC Séville juromi bal wala dor fi ñi di wa Bayern ñent bal naka noonu iki bobu di Real Madrid muy El Clasico bi mu gagné barki dem woo Ndiaye loolu rek dégg mam dal jaar sax ñu dal di koy def coach of the month moo taxit dal dinañ koy def ñom wa Espagne lu aju ci loolu nga xam moy Liga bi li moy Nicolas Jackson l'international sénégalais jamono bi mom tam dafa dal di dugg ci jaloore gannaaw bi nga xamee saison bi wessu lu cioli bari bari mu ngi doon dugal ay bit waye nak ñu gis ne ñu bari dañ ko doon critiquer rek wala lu ne koy wax waye ren ji ma xol ana kuy wax ci mom ana lan nga koy wax ndax jamono bi ka dafa dugg ci taarix bu ñu xolé attaquant yi nga ñoo gëna siiw ci histoire équipe Chelsea Football Club ki nga xamante ne mooy Nicolas Jackson daal dina leen di raw ci li nga xam ne mooy dugal ay but ndax dafa dugal li nga xam ne mooy 20 but ci li nga xam ne mooy English Premier League moom kooku di Jackson ci 44 matchs ñeent a daj mën dugal ki nga xamante ne mooy Nicolas Jackson def na lu gën a néew 44 matchs mu marqué te nag moom nekkul fi di door ay penalty voilà moom bal yi muy dugal yëpp daanaka ci li ñu tuddee open play la Nicolas Jackson marqué na 20 buts ci 44 matchs Drogba def ko ci 50 matchs ki nga xam ne moom la ñuy wax Crespo Crespo moom tam mu ngi ko daldi dugal ci li nga xam ne mooy 51 ci ay matchs maanaam juróom fukki jongante ak benn ki nga xamante ne mooy Fernando Torres voilà moom ci 110 match la ko daal di def dégg nga maam jéem lu toll ci téeméeri jongante ak fukk di soog a am ñaar fukki bal ci English Premier League ak équipe di Chelsea Football Club kon da gis na dëgg-dëgg Nicolas Jackson ku ko bëgg wax dara da nga koo bëgg a rek wax dëgg waaye ñu ko jiitu amul kenn ku ko ci man maanaam ci attaquant Chelsea Football Club mbirum ki nga xam ne mooy Kai Havertz bu ñu ko waxati sax ndax bu ñu tudd ay ay Crespo ay kii di Fernando Torres kon kooku dégg nga maam di Kai Havertz war nañ ko sax mën a bañ a tudd ndax moom kat la mu def Chelsea yëpp lu toll ci fukki bal ak juróom-ñeent képp la fa dal di dugal kon kooku waxatu ñuy waxam moo ngi doon gars yi looloo fi gënoon fees way leen di topp Sen Sports 221